ñu ngi leen di nuyu am yéen technique di leen dalal jàmm saa su ne rek ñu am mbégte di jànnu ak yéen ñu ngi tey ci Rufisque cité Takko ñëw rek xool si famille yu ñii di Mamadou Ba ak Ousseynou Loum nekkoon ay xarit ñoom ñaar ñu ñii nag ñoo ànd rek lab ca géej ga daal di si ñàkk seen bakkan gannaaw rek ba ñu defee seen épreuve ba noppi si lu ñeel BFM bi ñoom ñaar ñu ñii nag démb rek la ñu lab démb sax la ñu gis kooru Ousseynou di seex waaye nag Mamadou Ba niki tey ci suba ci lañu gis ko kooram eh, eh, ba sax daal dinañu koy jëli ñu ngi ni nak ci kër famille am gannaaw ba nga eh, xamanteni ke ñam Ousseynou kenn nangu fa yëkkati kàddu donte sax Andour Ousseynou du di Assane tristesse lañu ko fekke waye rek mënu ci yëkkati ay kaddu ñu gis famille yu Mamadou Ba ki nga xamanteni ni mooy waajuram bu jigen ak frèream waye té dañu gis seen coach bu leen yoron école football bu ko défé rek ñu daal di ñuy dikkatal ci ñaari di Mamadou Ba ak Ousseynou Lou Ahmed man eh, bàjjanam la waaw ndax papa ak man mi suñu ñaar yaay ñu wow. nday ak baay waaw. bar bu nakari bi nga xamanteni amna na ci. biñu ko yegge day tiss nañu lol ndax yaakaaruñu ko won xalé bu baax xalé bu yaru xalé bu am kersa xalé bu nga xamé ni doxul waxul dudul jang jàng ñew tok ci wetu papa mak yaayam. waaw ñun dal nakar bu metti metti lañu am demba ndax papam ji moma ma woo papam la woo ma ay 4 h fekk ñun ñu ngi dëkk Medina ri 15 ang Blaise yañ nema li ka ndax yëg nga ma naqar bi ñu yeewoo tay ma ko jàmm yalla lu xew mu ne Mouhamed de an ànd euh fële brevet sportif andak ay wa classam ñu dem ñuy songu rek dess fa ñatt lañu won kenn ki daw genn ñom ñaan ñu dess fa ni lii daal nañu ko amee nii rek lañu ko amee nii rek la ñu ko wax dëgg yàlla si la daw man ak sama sœur ak sama cousine yi ñu daal di ñëw yegg si fii fekk fi nouvelle bu naqari wax dëgg yàlla nouvelle bu naqari guddi ba léegi nelawuñu di ko ñaanal yàlla rek mu génn wante yàlla def na ne comme génn na wallaahi dañuy sant yàlla. yaayam la ma yaayam. naka nga yëgee xibaar bu naqari bi. ah man de dafa xëy rek ñoom doon defi bëre bi xaw ma la wax daal. pare woon defi bi ci bërëb bi nee na man daal awma ci lu dul sa doom lap na loolu daal laa ci am hmm. ñoom dañu xëyoon dem jàngi dem def jub seen brevet la ñu wax. Hmm? noonu lañ jaaree. noonu lañ jaaree moom moom Ousseynou noonu lañ jaaree sama sama benn dëkkandoo collecte papaam moom it noonu daal xale yi noonu lañ demee daal. kañ la gis moom ni moom Assane Ousseynou lañ njëkk a gis Mouhamed léegi lañ koy soog a gis waaw tey ci suba la ñuy soog a gis Mouhamed waa jëli ji nañ ko waaw. moom ñaata at la am. amoon ba 2004 la. Mhm. Ah, boo ñu doon defal témoignage ci moom ban genre xale la woon. xale bu yaru xale bu ma bëgg Mouhamed su may wax ci moom sax dama xam sax. ndax xale bu ma bëgg la day jël kàtt papaam bii ne ma yaay maa lay dawalal ma ne ko ay amet bàyyi ma waay mu ne ma waay maa lay dawalal yaay maa lay yóbbu màkk xale bi bëgg ma yéene ma lu baax bu fi ñëw amet da lay accueillir démb li fi ñëw ci ay nit macha allah macha am ak ñëpp jàmm ñëpp am ak jàmm amet dóorewul xeexul foo ko gis orang yaay rek isin seen bëñ ñi rek ngay banyak. moo tax ada ba ñëpp maa bëñoon wax bu bu man maay man maay sen coach maay sen entraîneur école football man la ñu nekkal depuis ñu nekk xale man la ñu nekkal depuis ñu nekk xale man la nekkal xale lañ ma leen jox ba ba nañ waaw lan moo leen fa yóbbu woon dañu def brevet ba pare comme li xale yi di def rek ñu ne après ñoom dañuy dem pour géej pour distraire wala pour sangu loolu moo indi ndogal bi daal waaw. ndax ñoom ñaar kese ñu am na am na am na tam seen yeneen cousin seen benn cousin bu ñu àndal ak foog naa yeneen xale daal ci liñ ma expliqué. Mhm. waaw mais ànduñu woon ñoom ñaar rek waaw. ñoom ñaar ñëpp gis nañ seen ko waaw kenn ki feeñ na keneen ki tamit feeñ na ñoom ñaan ñëpp feeñ na waaw. kañ la xew. démb ci suba gi bi ñu paree brevet. waa dem géej. Euh, boo ñu doon indil ay seede si ñaari xale yooyu nga xam ne yàgg nga ñoom bañ nekkee xale ba tey ñu ngi si say loxo nga doon seen coach lan nga ñuy wax si ñoom ñaar. Euh, xam naan daal li mu mën a wax ci gàttal ay avenir dee nañu xale yooyu ay avenir lañ te ay xale yu am talent lañ xale yu yaru xale yu baax xale yu xam teraanga xale yu jub tamit xale yu jub man moom xawma kan mais man moom man dama dama perte j'ai perdu dama ñàkk ñàkk naa sama ñaari doom wax dëgg yàlla samay doom lañu samay doom lañu xale yu ma bëggoon xale yu amoon confiance man malgré pour ñu ñëw entraînement dañuy def ay kilomètres pour ñëw sama entraînement te dañuy bàyyi seen koñ école football romb école football mais dinañ dox ay kilomètres pour ñëw ci man te dañuy dox fu ma leen oo dañ may uyu guddi bëccëg fu ma leen mën a oo dañuy dañuy uyu kenn ki yóbbu naa ko sax football na sax ak Paris Saint-Germain Ahmed Ba Ahmed Ba football na ak Paris saint ak rakku Mbappé stade Amitié football nañ fa demi-finale pour te dire que ni sélection laa yóbbu te dama tànn xale yi daax football Tëngéej ci la bokk Ousseynou agam moo tax mais ñoom ñaan ñëpp am talent mais Ahmed Ba moom wax dëgg yàlla man amoon naa yaakaar ci moom moo Ousseynou yëpp yëpp yëpp ba nii nii nii may wax nii am na tournant bu ma leen dugaloon dañu war a football final kon perte naa <laughs> du football bi sax mais dama ñàkk ay doom eh. dama ñàkk ñaari doom yu baax yu baax ci man